benn bi des mooy pollution bi tey ñun bu doon dem 200 mètres duñ am ndox li des moo mën a dem ay 400 mètres am forage bu am ndox te amuñu benn forage boo xamante ne bii mën na ne la lii pour producteur suñu problème bi gën a ngànd bi gën a ngànd ma wax la ko en résumé mooy numéro 1 numéro 2 numéro 3 problème ndox bu ñu amul ndox duñ mën a produire duñ mën a produire demuñu ci gaal yi demuñu fenn ay ndaw lañ ay jeunes la dañ liggéey lañ bëgg pour soxale réew. waaye nag bi doon nañ discours waaye dañuy bañ bu gudd mën a bañ ko résumé rek. ñun impacté yi dafa am ay problème yoo xamante ni ñoo ngi koy dund avec les ICS depuis 1957 bi nga xamante ni usine bi ñëw na fi bi si njëkk mooy problème mu indemnisation heure bu ñu tëkkee daanaka ñuy wax ak waa ICS problème mu indemnisation moo ko waral lu ci bëree bëri ndax mu tax ñoom heure bu ñu waxtaanee ak ñoom bu ñu delloo ko ci gin bu ñu demee ba ci biir bu te bi ci mujj mooy coow yi ngeen mujjee dégg. mu jëm ci wàllu sondage parce que ñoo ngi jubaloo 760 millions ci kanamu autorité yi ñu dem ba ci biir ba ñoo fay 235 millions te yaakaar naa ne bu woon intervention autorité yi fi nekk kon lii ñu ci am di 500 millions sax duñ ko ci am kon beneen bi tamit mooy li ñu juboo ci 500 millions yooyu ba léegi fayaguñu te ba ci juboo ak léegi daanaka leen mu mat weer dañ ñëwoon bu ñu juboo rek danañ leen fay mais ba léegi fayaguñu beneen am na dëkk yoo xamante ne. ba léegi seen ay tool yu yàq lu ci mel ni Ndongo jëm kaw Daya seen ay tool moom ñu yàq ba léegi kenn évalué ko te loolu nañ ko évalué fay leen ko parce que ICS moo ko yàq. beneen bi tamit mooy lu jëm ci wàllu santé ñun ñu dëkk village yi nga xamante ne dañoo nekk ci site minier bi monsieur le ministre ñëw nga fa ñun ci biir site minier bi la ñu dëkk kon nous sommes les impactés directs problème du santé yi ñuy wax képp ko wax feneen te waxoo ko ci ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci site minier bi ñooñu ñoo gën te boo bëggee dégg dëgg ñun amuñu sax carte de santé nga am carte de santé bañ fa tabax boo fa demee xar yaa ak fas yoo leen fay yeew amul dara lu fa nekk bañ naka ba infirmière ba fa nekk sax cotisation waa dëkk ñoom pour fay ko weer bu dee amul garab amul dara te bu ñu faju dañuy obligé di dox wala 7 kilomètres ci loo ay charrette ngay jël wala ay kalandoo loolu tamit dëgg yàlla jafe-jafe la ci ñun beneen bi tamit mooy dëkk ci site minier bi tous les types de pollution que vous pouvez imaginer sont là-bas. Une pollution des sols, une pollution de l'eau, une pollution atmosphérique. Il y a une pollution, il y a une pollution. Bien évidemment, moi, je vais vous emploi des jeunes. Nous, nous sommes ici, nous sommes venus abandonner. Tu connais moi. Nous, si je tiens par exemple, l'idée, 13 villages, je vais vous donner un petit peu de site minier. Mais nous, on a que 16 employés permanents aux 16. Sur 16 villages, sur 13 villages. Qui l'ont fait seize employés lañ fa am bii dëkk zéro bii dëkk un bii dëkk deux suñu dëkk daanaka benn employé ICS la amoon retraité na fi nii bu tuddee saa wax dëgg yàlla loolu tamit ñuy ay impacté direct loolu war nañ cee wax ndax suñu jeunes yi ñoo di chômer tous les jours. beneen bi tamit mooy fourniture en eau ñun dëkk yi ICS daf ñuy jox ndox gaal mais ndox bi du gratuit parce que ñun ICS dafay dafay utiliser ay forages yoo xamante ni mooy yi muy utiliser